safar safar safar safar safar safar safaru bamsasin junnatun aw safaru bamsasin jannatun gëléem dikkal na nag këram yuuxu naa ko fu jëm ay fan yu néew dana nu ñam yëgal safar wa teru na gëléem dikkal na nag këram di yuuxu naa ko fu nu jëm ay fan yu néew dana nu ñam yëgal safar wa teru na xar nee na béy jéema la dal ngay warri warri tey fétal léegi nu ceeb la mbaa mbaxal safar safar terooti na ginaar ne koppin ananaat ne ko mu teela fabuwaat léegi nu xëy nu defaraat bisub murit yi agsi na ngot ne jariñ coof anamu na teela a teew bu mu lëmu yaa na xam boppam te mu yëg ne safar te na petax yi muñ leen fët fëti du tee nu roy leen jox mati mu lakk leen mu safati safar mbiram te na lëg mën a daw du tax ngaraw jéema far dal taxaw te yëg ne bis bii war a ñëw moo di safar terooti na ceeb yàgg di ak maseeg jimboo teel leen na déggoo te juboo jarul di bii joo ko xuloo mbanay safar yi tege na soble demal ne pombiteer bum jéem a mànki mbaa di seer lum mën a jar daanu ko giir na yëg ne bis ba agsi na pataas na weeg koom-koom burit nañ teel a jàppe nuy xarit karoot na seeti ñambi it mu yëg ne bi teru na laaj bu mu laaj tayit korom na fekki poobar may megam poobar yëgal kaani rakam ne bi gën terooti na naafi salaat ak ngaari nen gis naa ko daaw ay fani fan ñaadi baxal ñaay toji nan tey moyenees lii kawe na yow chocolat beurre mburu faas yow chocolat beurre fromage te xam na yéen ak mburu faas seen suba dig ba jege yow chocolat beurre te leen na fekki seeni maas te xam na yéen ak mburu faas seen suba digg ba jege na yow mburu kàmp yaag sa mag yëg leen ne bii bis dafa jag kon tappa lappa na nga jóg teeru safar terootina wasiyaak kafeeg meew lipton teel leen na fekki siidi ton xaar fa mburoog yëg gën a bon ndékkik safar jegeeti na laxas yi fàtte wuñu leen laaxi bisaab ya jege leen kànjaa ngi xaar déggante leen tamaate doom randu si na laaxub sangal laaxub araw waaj leen te jéem xam li xew soow nëtëreeg meew dana dëw ci bis bu neex bii jege na ruy daañ la togg ba nga ruy ñu jóor la meew sotti la buy suukar la jox la nit ñu xay safar safar dëkkmal si na caaf tàkkusaan lañ lay boxam bool la ak kafeeg rakkam muy war gambaa was ma ñu xam baxin baxin terooti na yéen naan yi teel leen jege teel leen a sedd te tege na ngeen ñaqit ku mos bége safar yiwam yi bari na yéen eau de na ngeen gis aynu moo leen kawe yéen moo dëkk Tuuba mooy ki leen war dalal te yaatu na doomi sëriñ fàlloo ko moom kon aynu sëñ Tuuba ko moom sëñ Bàmba nag moom lu mu moom moo gën leneen lii dëggu na canette orange coca gasel wim toog yeneen yi li mu wul tellee na sedd ñu teral gani sëriñ bi woote na naanuk lokaal yi jege leen bu yëg bisaab daqaar yeneen di tax ba màdd soobu leen safar mbigam yi agsi na jaaykat yi ñëw leen te yaru te moytu kibrook kibaru te boole sukkuroog dikru moo gën di tàccu dëggu na lu ngeen fa jaay dana fajar lan leen su ngeen jullee fajar maggal ku teew fa danga ser ngir mbégte lii dëggooti na état li leen màggal jural ci koom na ngeen ko xëy béral delloo sëriñ bamba njukkal war na ci yéen te jaadu na diw ceeb ndox ak seen mbokk ya essence bu waa sonk yére ya dal yeneen yu bari ya tuubaa di makka ak madina su aj jotee naar yi falu màggal su ngeen falu seen koom yi ba fulu safar nga lam bari na sëriñ bi lim sedd état bareem rëyaayam sabata toolu sëriñ bi nabata safar mayam yi yaatu na bis la bu diine mus la am ki sàmm diine moo ko am taarix du xamle fu mu am Cheikh Bamba may gi yéeme na coonoom bi andi nay njariñ coonoom bi moonu taaji añ murit añal ci ak xereñ ndabam li teg bi dëll na tekat ba muy toggu gisul kuy andi matt bay boyal moom rekk a togg te xamul ñamam yu neex yi bari na dann la bopp rab wi mu jam moo tër ko fees ko toggi ñam mu ñor mu yekk taaj ñoñom sëriñ bi raw gi kawe na yàllaa ko jox ay jumtuwaay yonen bi fab ko def ko waay mu raw mu rangu koy médaille sëriñ bi jiitoom kawe na not na te kat tiga tojul tëral na noon yi te jëmul tuurul deret te fetalul sëriñ bi dooleem bari na xalima kënu ci la jihaat te ci lanu fàggul texeg ëllëg banu lot lottu ci sant dëggu na moom rekk a woon cundum yëgal ci biiri noonam te loxul xelam naxul te jaaxlewul sëriñ bi wéet gi ëpp na fitam wa ngor wóolu ga yàlla boroomam wegu ga sàmmoom ga ak wakiirlu ga amu ci kem lii dëggu na fit wa xamam gu yaatu ga wéetal ga yàlla maandu ga kennal ga yàlla doylu ga amu ci moroom te jomb na dem na ba ñëw waxul lu ñaaw jëful lu ñaaw ba xëy ba jaaw muñam gi raw na asamaaw te may gi rëy gi kawe na ku topp mbooroom gëm ne moom amul moroom gis am soloom nangu li buur dogal ci moom muy raw di gën kii jiitu na yàllaa ko yan moo yenni ko yonen bi ñëw jàppale ko ñeneen ñu dul ñii gisu ko sëriñ bi raw gi yàgg na nattoom yi kuñ ko teg amul baawan ba tey nit attanul nattu yonen ya lañu ful teg ko sëriñ bi metti na taxul mu gaññi mbaamu mu rët mësul ne nangul xarit yàgg na lool te saali tut haa yor fitam ba jomb na wét ga taxul xelam mënax mbindam ba ñuum te du ko rax léppam boroomam la ko jox léppam boroomam sàmm na yàllaa ko fek ba noonu du am bunt ci moom ba di ko jam yàlla borom beeg yonenam ñoo gaw ko sëñ bi aaru na telli soxam bi maase na daj fépp dun bi yëngu na sëriñ bi maasam jomm na yàllaa ko falte kawe na yàllaa ko def nii mu ko def ku dëkk yàlla yaa ko dof yàlla ku song ko tërëf ka xëy ko song sànku na biraasu man barazani biraasu man huwa sa topp xat ana nii loolu maa ko xam te doy na ma li yàlla jox ko mën la jeex tem bari lool te lépp neex sëriñ bi kum dëkkal nga feex këri sëriñ bi yaatu na nan gaw ndabam yi tem rafet lekkin wi moytu sex di fot lii cax la ràññeel yow xarit sëriñ bi léppam sell na ñam wi xamul te xajamul kon saaxib bul ko xajamal ba tey ma cax la soo xamul moom lu jëgul toppale na sooy ñëw di màggal si fobal soxol raxas ca yëgganul lu yàlla buur bi bañ foñal bu ko fa def faa sell na tuubaa nga jëm te fooy sete waroo taqal fóotal fete sa xol bi nay ndab bul rate tawub ngëneel yi dotti na sëñ bi lu baaxul nanguwul lu dul lëggan moom geesuwul lum yaatu yaatu it gisul la yàlla bëgg taamu na la yàlla bañ la bamba bañ murit bi jéem a la xereñ ku yàlla dañ ci yow mu dañ ci yow sëriñ bi yeete na nan jël bindam yi nafaraat tey moytu yañ naa xafalaat te fañ lu di ay hëfawaat sëriñ bi lépp bind na yow mi xamul yëral mbindam mbaa soo yëree lëf doo ca xam demal nga laaj ku yër te xam mu wax la sëñ bi moom kana neexula duural bind na tomb na junj waare na yare na diina xam la ne sëriñ bi waat na wàcc na caaxaan bareeg néew ci yam kay def ko kum doon nel na xam sëriñ bi soxlawul mbiram sëriñ bi ak njub tànn na ñay fexe ngir dunde ko moom xàmmee na leen bàmba du juum ëllëg ku nekk la nga moom lay jox la xel ma sell na deesu ko sàcc duñ ko nax ndoxam mu neex mi tën a tëx sëriñ bi biiram lu fa sax lu jagle yàlla seere na yaa saahi nan moytu xuruur moytu xaruur ba sax ci ruur topp ko mooy warali dóor iblis xaruur ba alkuna sëriñ bi moytulu na ko ay yooni yoon yaxal na ko te ak bonam leeral na ko kum war sa pas-pas sikk na gëm naa sëriñ bi rekk doyul faawu nga jëf murit wuyul li xol bi fas cër yeey dëggal ku xeeñtu mbooram texe na màggal gi ñépp ñoo ci yam tariqa yépp nañu dem tuubaat ca sàkku ji ngërëm sëriñ bi waa meem làmb na làmb na fépp ba saxal meññet mu neex mu foroxul ku mos ne xaax mosaat yëgal sëriñ bi léppam yéeme na ba muy liggéey moom jommalul yàlla boroom moom te warul moo tax payam gi mànkiwul ba kuy mbindeef jariñu na kon gaañi nan gore te sëriñ bi mos nanu tibam lim nu defal nan maase xam xaqam ja jox ko ko tëna nan daggiwaat pas-pas yi nun te yem ci sëñ bi mooy li gën wéeru ci moom tey daw lu bon ku sey ci sëñ bi texe na ku daj sëriñ bi xëy nga daj kum yor sa mbir sa mbër du lëj jox ko sa mbir bilaa laa sëriñ bi biiram yaatu na booba ba tey téeméeri at këram yi wéy di gën xat sëriñ bi léppam dafa mat yàllaa ko tungoom kawe na booba ba tey téeméeri at këram yi wéy di gën a xat sëriñ bi léppam dafa mat yàllaa ko tungoom kawe na téeméeri at muy wéy di siiw sëriñ bi nan ko ne katiiw bun yàbbi weenam am na meew nan sex ko téen ba aljana téeméeri at muy wéy di siiw sëriñ bi nan ko ne katiiw bun yàbbi weenam am na meew nan sax ko téen ba aljana taxawlu naa géej soo mënul ndox bul ko xuus yow tefasul te soo bañee tooy wogasul sëriñ bi géej la yaatu na taxawlu naa géej soo mënul ndox bul ko xuus yow tefesul te soo bañee tooy wogasul sëriñ bi géej la yaatu na jullil ci mustafaa mbégam laa faale saa bay ak ñoñam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 في كل سهر وفي ظفر هماني ألا ماهن ما الأبصر